bisimilaa. ñàkko karange gi lée ah doy na waar termine yéene kay ne ñàkko karange gi day waaw Sénégal lañ ca fanweer ak ñeenteelu place ba mardi daal dama ne la Cap-Vert ak Mauritanie gi lée moo ñu raw laaste waaye est-ce que nag du ñu indiwaat ku rey ñu rey la maanaam benn mort rek barke Rasuul laay ku rey ñu rey la Le Quotidien yéene kay ne waaye deewu Cheikh Niass bi lée ah, goo xam ne day dana jafe ngir ñu suul ko de lool parce que njabootug Cheikh Niass googee ah nee nañu am laa la wax ah, ah. te moo ni ñu ngi ñuy gëm loo amoon na autopsie njabootu Cheikh Niass gi ne c'est pas vrai c'est faux amul seen doom ji la kenn mës laal kon yaramam bi laa jabaram ci boppam moom moo bu ko kenn laal ñu ñuy gëmloo ne amoon na waaw dee naturel la ñang ñang ñang patata ba dem sax ba naan ñu ay crise hyperglycémie c'est faux loolee amul nijaayu Cheikh Niass moomee di Assane Thiam ci yéen kaay gi waaw nee ministre de l'intérieur ak ministre de la justice Malick Sall ñooñee a ubbi ab enquête laa la wax waaye police bañ ñoo cay wax waaye du ñun réew mi quotidien daal du ñuy expliquer coow li kon nan la demee l'observateur daal du ñuy defal enquête ci carrière bu doy waar lii nga xam ne commissaire Ahmed Bachir Ndiaye daal dina koy def waa ji ndekete jaar na ci armée bi turki jam affecté woon nañ ko Casamance duggam ci biir police bam fii menacé ne dana démissionné ca jemi que a kaay groupe Futurs Médias gi ne nag boo sàgganee danañu yëkkati ay daan law ko ci ndoddam de ah commissaire kay ne mënuma aventure yow nag di leen wax naan leen daan yi lii lay nekk lee ca jamono joo xam ne nag maanaam nit ñaa ngi dee direct news nee na inondation yi day gis nga ca Kër Massar ke nee ma unité 3 musiba mbaa ba kumba bi daal mooy ndàmpaay moo ca unité 3 yéex na le téemo yéene kaa ne xeex ak wàllum inondation yooyee ca banlieue di expert de l'eau ak assainissement ña ngay wane na kon yoon wax ca jamono jooje njëg yaa ngi dogal bi nga xam ne na nguur gi daal dina koy jël waaw ngir dund gi ñu wàññi ko loo ëpp kon junni ak juróomi téeméer ci ay commerçant teg nañ leen grand parti waaw ci wal fajiri ak 24 lu jëm nag ci wàllum dund gu seer gi doy askan wi ci kon dool nañu sonn nañu Malick Gakou yamu ca parce que waa ji nee na lii nag day mandargaal ne gis nga Macky Sall mi lée daal dinay lajj laa la wax dafa échoué dëgg la jiital grand parti ne nguur gi nag fi mu nekk nii la mu war a jublu daal mooy assainir suñu wàllum koppar gi finance publique yi waaw nga xam ne dara yàq ko lu dul yorin gu bonu Macky Sall jaxat-jaxatee askan wi yàq xaalis bi lée indi fi wàllum ger ay tojaange yoo xam ne saay bu ñu xëyee muy gën di am ci biir nguur gi lée Malick Gakou ñoo ma àndal day ma wàllu njàng meeg njàngale de waaw gouvernement bi day mook syndicaliste yi ña nga jëmati ci négociation de sur quotidien ne syndicaliste yi léegi daa mel ni dañoo wàccee seen loxo de ah. mobilisation bi ñu doon def xeex ak yelleefu liggéeykat ya waaw wàccee seen loxo ci kanamu patronat bi lée est-ce que syndicaliste yi wàccuñu le témoin yéene kaa ne demal ma ca kaw gële béykat ya waaw fi mu nekk nii nag ànd nañoo njàq rek tiis te xalaat ne nawet bii mardi taal te xiif le leen di yoot la sabab lu ni mel nag mooy akbar ak li nit ñi di dund yëpp libération yéene kaay nee am na ab mafia boo xam ne ma nga am na ca aéroport international Blaise ñooy jël nit ñi di leen yóbbu kon bitim réew gars yi di fay ar di taali loolu mënta ne si agent de police bi lé di ko njaay six cent mille la doon laal par candidat gendarmerie ko teg loxo de Aristide Ba ak Samine Ndéla Faye agent de sûreté jaama nekk membre cartel bi trois cent jàpp huit cent lañ doon laal Pierre Ngor Sarr alias Aziz Sarr waa mooy punkal moo jiite gars doon jox candidat yi lée xam ne daal la ñuy fay yëpp ci ay 4 millions lay toll allahu akbar léegi nag Guy Marius Sagna kaas 24 heures jël ko denc ko ci kaso bi allahu akbar Aliou Sané bu Y'en a marre waaw ginnaaw ak mars ak xalif général ak murit yi tànk yam ca doxoon ñun daal dañoo jàpp ne léegi loxo dañ koo takk daal ngir Macky Sall jàpp ñu di ñu dóor te nag li ñu suñ kilifa diine santoon yëpp respecté nañu ko te maa ngi woo a m 2 ak force yëpp ñu gug xeex ndax lii nag la Macky Sall daal fi mu nekk nii tribunal bii la bëgg a jël lal ko ci mbedd yéeni kaa gi ne moom Guy Marius Sagna nag dinañu ko àtte koon alxamis di di ñëw ca jamono jooje politiciens yaa ngay préparé élection locale ya la defes yéene kaay ne Serigne Boub day waaw moom day kaw la ñëpp a jëm di ko jàppale ji laa wax Serigne Djili Mbacké APR Daaru Xudoos ci critique yéene kaay nee na xel xalaatul sax ñuy jox commune bi allié yi APS ak AFP ak stratégie ngir tànn seeni candidat le témoin yéen a njaayum carte yee ca tëngeej day xeex la mujjee mardi tali alaaji Malick njiital grand parti ci l'info yéen a waaw nee waa grand parti yi jóg leen ñu xeex te képp koo xam ne gis nañ la ngay ànd ak waa Benno Bokk Yaakaar danañu yëkkati ay daan sa kaw de ministre Moussa Baldé nee man day responsable Benno Bokk Yaakaar yi rek laay déglu source fulu total moo am ci Benno Bokk Yaakaar la wax te gis nga <laughs> paaka ñaari boor la seen lisibilité dee fi mu nekk nii la wax waaw moo tax xam ne ñi ngi jël alal ji di ko dugal ci biir nit ñi laa la wax ngir ñu tànn leen Macky Sall na ginnaaw ba defee kon enquête am nuppi dana déglu leader yi nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar yéen kaay gi ne même bu dee sax ku nekk ngi naan candidat laa dara leeragul laa la wax ci Macky rek la dépendre le mandat yéen ak laas Parcelles Assainies day APR waaw nee ku ñëw baax na ba mu des kon Moussa Sy tout sauf laa la wax enquête yéen kaay ne élection locale yi day la ñu ne ndeysaan xoolal ma Xataab Silla gaa ñoo xam ne ay technocrate lañ woon ñu respecté leen lool ñu daal soobu ci politique lé safatuñ yàpp safatuñ jën bëgg base politique rek ngir mën a jege président ca yàlla critique yéene kaay ne médiature de la république day Demba Kandji waaw daal nay remplacé na kii di Aline Badara Cissé moo maître tribune yéene kaay ne mais Demba Kandji est-ce dana mën la maître Aline Badara Cissé mënoon source aane Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké day demoon na jaale maa fi waroon a jiitu a am ci ab la ma mën a xamal mbooloo mi nag mooy soxna Ayda Mbooj mi lée jigéen la waaye jàmbaar la ne tek seq ak ñëpp jàmm rawatina waa kër Sëñ Tuubaa te la ma mën a seede ca waajuramu jigéen wi fi jigéen yi la di Adja Aminata Sarr ku bëggoon doomam ju jigéen ji di Ayda Mbooj ba ca présidentielle ba moo njëkk a yeenu candidature doomam ji yéeni kaay daaw da càmmine Souleymane na Ndiaye day daa mer ba futu laa la wax mer waaw parce que Fallou Kébé moom la ñu fal léegi président ay Saloum comité boo xam ne ko sojaane ko jiite ñoo fal waa ji de nee na mer <laughs> Souleymane Ndéné de ak lu mu mer mer mer mer mer mer mer te merle wuñu suñu pétrole bii mer gi des na parce que suul gaz du ko tere xañ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma la alaaji tëjal